abu omar wa ahmad bnu xaalid an yaquba bnu yusuf an muhammad bnu jaafar bnu muhammad an abihi an jaddihi qaal jële nañ ci sang yu tedd yi ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni assalaatu mardatullahi taala maanaam julli mooy kontaanloo loo yàlla boo bëggee yàlla kontaan daal del julli ne itam mooy mbëggeelu malaaka yi malaaka boo ko laajee lan nga gën a bëgg mu ne julli nee na moo doon aaday yonent yi moo nekkoon seen sunna waaw man eh, yonent yi yàlla yónni yépp seen sunna julli la woon moom leen gënoon a bëgg moom leen ëppoon ci li ñuy def nee na itam moo di leeru xam yàlla boo bëggee xam yàlla fokk ngay julli nee na mooy cosaanu limaan bu fekkoon gëm yàlla garab la ñu ne reen ya mooy julli ñu ne mooy ñu ne itam ijaabatu duaa la nee na day tax ñu nangu sa ñaan boo dee julli yàlla day nangu sa ñaan loo ko ñaan mu nangu ko nee na itam day tax yàlla nangu say jëf say sarax say koor ak say boo dee julli yàlla daf koy nangu waaye boo dul julli du ci nangu dara nee na itam day barkeel wërsëg boo dee julli yàlla day barkeel sa wërsëg nee na itam ngànnaay la ci say noon boo dee julli say noon duñu la mënal dara nee na itam moo di naqaru seytaane seytaane moom julli rek la bañ waaw boo ko dee def rek yaa ngi koy naqaral nee na itam moom julli nee na dafay woyofal itam sukuraat day tax bu malaaka bi day jël sa ruux du metti nee na itam lumière la ci sa bàmmeel boo duggee sa bàmmeel nee na lëndëm nga la koy dindi mooy julli nee na itam matelas bu nooy la buñ la tëralee ci sa bàmmeel nee itam tontu la ci sa digganteeg ñaari malaaka yooyu di la laaj ci sa bàmmeel waaw te moo di kiir ak na kiir ñaari malaaka yu ñàng yooyu di laaj nit ñi ci seen bàmmeel nee julli nag moo fay nekk sa aboka nee na la itam ci bàmmeel ba bis ba waaw bàmmeel dafa wéet waaye boo dee julli say julli ñoo la fay wéttali moo tax ñu ne itam ëllëg ker du am yowmal xiyaam waaye nag la fay këral nit moo di julli nee na ëllëg itam mbaxana mu jekk lay nekk nee na ci aji julli ji julli yi nga daan julli day nekk mbaxana mu rafet waaw mbaxana mu dàq sax mbaxana buur yi nee itam yére yu rafet la ëllëg yowmal xiyaam nee na itam leer la gu nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam bu ñëpp ñàkkee leer nee say julli moo lay leeralal ci sa kanam nee itam barrage la buy dox sa digganteeg safara miir la boo xamante ni mooy dox sa digganteeg safara kon boo dee julli doo dugg safara mukk nee na itam lay la ñeel way gëm ñi ëllëg ci seen kanamu boroom nee na itam poids bu diis la ëllëg bu yàlla bu malaaka yi dee peese jëfi jaam yi nee itam nee itam ëllëg mooy jàllale nit ki ci siraat nee na itam moom moo di caabi na waaw caabi bi nit ki di tijjee buntu àjjana mooy julli waaw kon mu mel ni daal julli ay ngëneel yu rëy ngi ci moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax na ne julli sàbbaal a nga sàbbaal mu ngi ci boo ko dee def yaa ngi sàbbaal sa borom di ko sellal yaa ngi ciy jàng alquran di ci ñaan yaa ngi ciy sant sa boroom waaw mu ne kon nag jëf yi yëpp bi ci gën mooy julli ca waxtu wa mu ne kon julli ji di leen julli ci waxtu ñu ne jëlee nañ ci xasan mu wax ne li ñuy njëkk rek lay jaam bi ëllëg yomal xiyaam moo di julleem bu rafetee léppam rafet waaw rek leem rafet léppam jekk ñu ne wante itam bu fekkee am na lu ca wàññeeku yàlla day day laaj ne waaw yéen jaam yi ndax amuloon naafila yum daan def ñu ne ko ah yi mu ne jël leen naafila ngeen mottalee ko ay farataam kon naafila baax na moo tax ne ma min buqaatin yonente bi sallallahu moo ko wax anas nettaliñu li ñu ko mu ne ma min buqaatin yusalli fiha salaat waaw amul benn barab boo xamante ni nit ki taxaw na di fa julli wala mu fay tudd boroomam lu dul ba barab ba mu ngay bég ci julli ga di bég ca tudd ga ñuy tudd yàlla ci koom waaw di ca bég nag di ci puukarewu waaw la ko dale ca barab ba ba ci juróom-ñaareelu suuf barab ba mu ngi cay puukarewu waaw di ca puukareewu itam ci yeneen barab yi ko wër nekk ay barab ni moom te kenn julliwu fa moom muy puukareewu te ne ci man de lañuy jullee ci man la ñuy tuddee sans borom kon jàkka ju nekk yaa ngiy puukareewu ci yeneen barab yi nekk ci seen wet waaw kon barab bi ñu tabax dancin wala barab bi ñu tabax ay bitig di fa jaay wala barab yi ñu tabax eh, ay kër te kenn du fa julli waaw barab yi nekk ci seen wet te ñu fay julli barab yooyu ñoo ëpp ngëneel ñoo ëpp puukare ñoo ëpp tiitar te ñu ngay tiitaru itam ci kaw barab yooyu moo tax ñu ne yonent bi sallallahu wax na ne ma min abdin yadauna alayhi ala al ard yuridu salaat illa taraxabat lahu ard mu ne amul benn jaam boo xamante ni jóg na summi ñaari dàllam pour fas ne julli lu dul ba suuf a ngi koy yaatal naan ko marxaban waaw marxaban yegsil yegsil gaawal nga ñëw julli ci sama kaw ndax rek ngëneel gi nekk ci julli ñu ne waaw ngëneel yu rëy yi bu nekkee ci julli kon sàggane julli moom lan moo ci nekk yàlla ne ki sàggane julli moom nee duma ko fayee lu dul safaraw jahannam ndax fa xalafa mu baadihim xalfun adaau salaata wattabau shahawaat fa sawfa yalqawna gayya nit ñi nga xamante ni seen bàyyi ak seeni maam dañu gëmoon yàlla lool di ko topp daan julli di rafetal julli ya sàmm ko ñoom ñu ñëw nag sàggane julli faale ko yàlla topp cakaayu àdduna bi ak bànneex bi yàlla nee na ñooñu ëllëg la ma leen di faye mooy barab bu ñàng bu nekk ci safaraw jahannam ñu koy wax rayi moo tax boroom xam-xam yi warante neen ci barab boobu laaj ku ñuy wax ata mu ne xëy nee benn xuur la wu nekk ci safaraw jahannam nee na dëtt ji jóge ak deret ji nga xamante ni mooy jóge ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajaloo di fa tuuru foofu mooy xay waaw kii dul julli foofu leen koy dugal ëllëg laaj nañ kaabu mu ne benn xuur la wu nekk ca safara nee na te xóot lool moo gën a suufe ci safara nee na te tàng jër nee na am na fa benn teen bu ñuy wax hëb-hëb waaw nee bu safara demee sax ba xaw a dal tuuti nee na yàlla dafay ubbi teen boobu nee teen boobu nag nee na day yànjaat bu yànjee nag fa la tàkk-tàkk yi di jóge pour mën a taalaat safara mu gën a tàkk nee na ku dul julli foofu leen lay dugal laaj neen ku ñuy wax wëhb mu ne xëy yi moom benn benn dex la bu nekk ci safara jahannam nee na benn toq rekk ci ndoxu dex safara woowu nee bu fekkonte ne toq boobu wadd na fii ci ci ci àdduna nee na alak nit ñi fi nekk ñépp ndax toq boobu moo gën a moo gën a garaaw bomb atomik moo tax ñu ne kon ki nga xamante ni nee bàyyi na julli loolu la ko yàlla di faye wax neen yonent bi sallallahu alayhi wa nee na képp koo xamante ni nee tere nga sa bopp juróom yàlla dana la tere juróom ki nga xamante ni tere na boppam ñaan ki dul ñaan yàlla mukk nee na yàlla du ko defal xéewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yàlla nangu sa ñaan mu ne yàlla itam bu la xañee maanaam boo xañee sa bopp di saraxe mu ne yàlla dana la xañ jàmm ku dul saraxe doo am jàmm waaw ñi dul saraxe ñépp ci ay lanu dëkk mu ne képp koo xamee itam xañ nga sa bopp joxe azaka ak yiw wi ci nekk nee na yàlla dana yàq sa alal ak lu sa alal bari bari yàlla dana xëy yàq ko mu ne képp koo xamante ni itam la nga am bokkookook nit ñi lu dul danga koo xumtoo rek ci sa ruq bopp nee na yàlla nee na nee na wërsëg wa ngay fàggu duma ko barkeel waaw day mel ni yoruloo dërëm ñi yor ñi yorul saxalay waaw mu ne képp koo xamante ni itam xañ nga sa bopp dem ca mbooloo muy julli ja julli ca jàkka ja ànd ak mbooloo mi nee na ëllëg danaa la xañ itam yool bi nekk ci wax laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah moo tax yoon di ko la mbooloo ci sa xeet ëllëg nee du am ëllëg du jëf ëllëg du yég xeetu neexaayu àjjana suuf doon def yépp ëllëg du am neexaayu xeetu àjjana moo tax jibril ak mikail alayhim wax ne ne yàlla rëbb ki dul julli ci mbooloo fii ci àdduna ak àllaaxira nee na itam yàlla rëbb na leen ci tawreet rëbb leen ci injil ak zabuur rëbb leen ci furqaan moo tax yàlla wax yonent bi wax ne iza raaytumu rajula yu la taqoo dem jàkka nee na seedeel leen ko nag ne ngëm a ngi ci moom ndax ngëm du nekk mukk lu dul ci ki nga xamante ni dëgg yàlla mu ngay dem jàkka parce que dem jàkk ca jàkka ja di fa julli lu difficile la waaw innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawmi al yàlla nee na këy kiy dundal jàkka ci jàng alquran ak julli nee na nekkul lu dul ka gëm yàlla nekk ci xolam kon ki gëm yàlla rekk mooy dundal jàkk kon boo dundal jàkk sa ngëm des na moo tax am na benn waay bu gaañu woon ci jamonoy abu bakrin siddiq radiallahu anhu nee na nit ñépp daal di dem nag ci jullee ga waaye bañ ko tegee ci buntu jàkk ji di ko jullee gis nañ ne eh, ni ñu ko sàngee am na luy yëngatu ci biir ci biir càngaay li am na lu cay yëngatu nit ñi tekki càngaay li di xool wante naka la tekki càngaay li rek gis benn jaan bu nga xamante ni ñu ngi ko laxas ci baatu néew bi mu mel ni dañ ko ko kolal ci baat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi sëgg ci yaramu néew bi di lekk ci yàpp yu di naan ci deret ji nee na nit ñi daal di gàddu seen yët wut si ko nar koo rey foofu nag la jaan ji waxe ak nit ñi ne leen la ilaha illallah muhammadu rasulullah maa ngi seede ne amul benn buur bu dul yàlla te yonent te muhammad yàllaa ko yónni li ma taqtuluuna nii lu tax ngeen bëgg maa rey walaysa li zanbun wala xata mu ne man defuma bàkkaar te tooñu ma kenn lu tax ngeen ngeen bëgg maa rey ne leen inna allaha amarani an uadibahu ila yawmi alqiyaama mu ne bàyyi leen ma yàlla ma digal néew bi ma koy mbugal ci nii ba keroog yowmal xiyaam keroog jullit ñëpp jaaxle nanu laaj ko ne ko waaw kii yenn musiba la def ba tax yàlla fayee ko mbugal bi mu ne ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bàkkaar tax yàlla fayee ko mbugal bi mu ne ko jaan ji ne leen bi ci njëkk moo di kaana iza samia al azana la yajiul jamaa da daan def fu mu déggee nodd du dem ci jàkk ju julli ca mbooloo ma waaw kon ku sàggane woon julli mbooloo la mu ne beneen bi ci des itam daawul du génnee azaka ci alalam daawul génnee azaka ci alalam beneen bi ci des itam daawul déglu boroom xam-xam yi bu ñuy waaraate waaw du déglu boroom xam-xam yi bi bu ñuy waaraate xam nga am na ñoo xam ne milieu bu ñuy fekk nit ñi di fa wax lu baax sax daneen fexe ba yàq ko def fa wax dugal fa waxu caaxaan am na ñoo xam ne bu ñu doxee ba gis barab bu ñuy waaraatee dañuy teggi am na ñoo xam ne rajo ya ñuy dégloo ci seen biir kër duñ fa taal mukk rajo buy euh, rajo buy wax ci wàllu diine ak ay waraate mu ne kon nag nit ki bu demee ba nga xamante ni àgg na fii du déglu boroom xam-xam yi du joxe azaka beneen bi beneen bi ci des itam du julli ci mbooloo nee na bu boobaa nag xeetu mbugal bii la ko yàlla di faye moo xam ni ñi gis neen ko wala gisuñu ko loolu la jaan ji wax nit ña ñu daal di koy bàyyi am na benn waay bu nga xamante ni jeune la dafa ñëw fekk yonent bi sallallahu alayhi wa mu toog muy jooy jooy yu metti yonent bi ne ko waaw lan moo tax ngay jooy mu ne ko sama baay dafa dee te amul luñ ko sàngee te amul itam ñu ko sang yonent bi daal di yabal Abu Bakr ak Seydina Omar ne leen dem leen ngeen sangu ko defar ko nee na bi ñu ñëwee nag ba tiim néew bi gis neen kanam gi daal mel ni kanamu mbaam xuux bu ñuul nee na ñoom itam ñu jaaxle daal di dellu siwaat ci yonent bi ne ko néew ba ñu yebaloon de ba ñu demee nañu ko melokaan wiñ ko fekkee jéggi na dayoo ndax daal euh, daal dafa niru daal mbaam xuux bu ñuul li ñu gis daal du nit yonent bi ne kon nan la ñu dem nen dem ca janaasa ba ñoom ñëpp ñu ànd ñëw ci néew bi bi ñu ñëwee yonent bi fekk ko ci melokaanu mbaam xuux boobu yonent bi daal di ñaan boroomam yàlla delloo siwaat ko ci melokaanu nitam dégg naka la ko yonent bi jullee ba ñu yóbbu ko pour dugal ko ci bàmmeel bi melokaanu mbaam xuux mi daal di dellu waat foofu nag yonent bi kanamam triste na mu gestu doomu waa ji tëdd ne ko waaw sa baay bii ay amalin kaana yaamal sa baay bi lu mu daan def fii ci àdduna doom ji ne ko ah, sama baay de mosuma ko gis mu sëpp jëm ci suuf moom daal daawul julli yonent bi ne ah loolu kay lay mën a doon daa di foofu la yonent bi gestoo saxaaba yi ne leen yaa asxaab yi unzuru xaala man taraka alsalaa yabaahu llahu yawma yabcathuhu llahu yawma alqiyaama mithla alxinziiri al aswad nauzu billah yonent bi daal di wax saxaaba yi ne leen xool leen melokaanu waa ji maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni sàggane na julli képp koo xamante ni bàyyi na julli du julli kooku ëllëg yàlla dana ko dëkkal ci melokaanu mbaam xoox bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xam ne julli nekk na lu am solo loo xamante yàlla fonk na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam fonk na ko sharia bi fonk na ko kon itam war nañ ko fonk ndax su njëriñ rek moo ci nekk ñu ne itam am na ay façon naafila yu nga xamante ni bëgg na leen ko jox ñu tuddee ko rawa ratibatu rawabitu euh, salawaatul xams julli juróom yi benn bu ci nekk rek am na xeetu naafila yi ñu bëgg nga la ko ci boo jullee ba noppi ñu ne bu julli fajar la boo ko maanaam julli fajar bëgg nañu maanaam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari rakka ñaari rakka yooyu itam naafila bu ñu bëgg la ndax yiw bu bëree ngi ci bëgg na ni itam ci ñaari rakka yooyu nga tari ci fatiha ci rakka bu njëkk bi ak qul yal ñaari rakka ñaari rakka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu loolu xadis dikk na ci leeral ko ñu ne itam su dee ci bu dee julli tisbaar ñu ne bëgg nañu nga naafila ci juróom benn rakka ñeenti rakka ngay def balaa nga julli tisbaar soo jullee tisbaar ba pare nga dolli nga naafila itam ñaari rakka kon ñeenti rakka lu jiitu ngay julli julli tisbaar ak ñaari rakka boo jullee tisbaar ba noppi wax ne ni daal julli tisbaar yonent bi digle na ci wax dëgg yàlla ñu def ci naafila boobu ndax yiw bu rëy daf ci nekk waaw boo jullee tisbaar ba noppi nga def ñaari rakka waaye lu ko jiitu la jiitu itam ngay julli tisbaar nga def ñeenti rakka yonent bi sallallahu alayhi wa digle na ko li tax nag mu digle ko xadis dikk na ci ndax jëlee neen ci Makxuul mu ne annahu qaala salla sallallahu alayhi wa sallam man salla arbaa rakaatin qabla duhr yaqra'u fi kulli rakaatin bi ummi alquran wa ayati alkursi wakkala allahu bihi thalathina malakan yaxfadunahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni nee na julli na lu jiitu muy julli tisbaar ñeenti raka raka bu ci nekk mu jàng ca fatiha ak ayatul kursi nee na yàlla dana ko jox ñi e, fanweeri malaaka yoo xamante ni ñoo koy garde di ko wattu ñu ne jële ci xaakim ibnu adi mu jële ci mu jële ci umu habiba mi nga xamante ni soxla soxna la woon ci yonente bi sallallahu alayhi mu wax ne yonent bi sallallahu wax na ne man xaafada ala arbai rakaatin qabla salaati zuhr wa arbaa baadaha xarama allahu xaramahu allahu ala annaar yonent bi na képp koo xamante ni sàmmoonte na ak ñeenti rakka yi mu war a julli lu jiitu tisbaar dégg nga am na itam ñu wax ne bu la neexee nga def ñeenti rakka balaa ngay julli tisbaar defaat itam ñeenti rakka ginnaaw tisbaar waaye xadis bi moo tax ñu wax ko nee neen képp koo xamante ni defi nga ko loolu ñeenti rakka lu jiitu ngay tisbaar eh, ngay julli tisbaar ak yeneen ñeenti rakka gannaaw ba nga jullee tisbaar yàlla dana araamal sa yaram safara ñu ne bu dee julli tàkkusaan ñu ne bëgg nañu balaa ngaa julli tàkkusaan nga naafi la ñeenti rakka an abi an abi darda man salla arbaa rakaat qabla al asr yaqra'u fi kulli rakaatin minha bi fatixati alkitab wa surati al asr wa fi riwaya muawiyat ibn abi sufyan man waadaba ala arbai rakaatin qabla al asr yaqra'u fi al ula bi fatixati alkitab wa iza zulzila wa fi althaniya bi fatixati alkitab wal aadiyat wa fi althalisa bi fatixati alkitab wal qaari'a wa fi rabia bi fatihati lkitaab wa takaasur xurrima laxmuhu ala annar jële nañ ci abi mu wax ne képp koo xamante ni julli na ñeenti raka lu njëkk muy julli tàkkusaan raka bu nekk mu jàng ca fatihatul kitaab ak wal asri inna al insaana la fi xusr nee na danañu araamal sa yaram safara waaye beneen riwaaye ñëw na muawiya ibnu abi sufyaan nettali ko wax ne képp koo xamante ni julli na lu jiitu muy julli tàkkusaan ñeenti raka raka bu njëkk ba mu jàng ca fatiha ak isa zulzila raka ñaareel ba mu jàng ci fatiha ak wal aadiyaat raka ñetteel ba mu jàng ci fatiha ak al qaaria raka ñeenteel ba mu jàng ci fatiha ak alhaakumu takaathur nee na yàlla dana araamal sa yaram safara neneen bu fekkente ni julli timis la mu ne julli timis ñaari rakka leen ci bëgg nga naafila ko boo jullee timis ba pare ñaari rakka ñu ne ndax jëli nañ ci sayyidatuna Aïcha mu ne qaala sallallahu alayhi wa sallam nicma suurataani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla alfajr wa ba'da almaghrib qul yaa ayyuha alkaafiruun wa qul huwa allahu ahad ñu ne jël neen ci saydatuna aïcha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñaari saar yi de baax nanu lool ñu jàng leen ci ñaari rakka fajar yi ak ñaari rakka gannaaw timis kon nga gis ne ñaari rakka fajar yi bëgg neen nga jàng ci ci rakka bu njëkk ba qul yaa ba ca topp qul wallahu ahad wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari rakka fajar yi noonu leen ko bëggee itam ci ñaari rakka timis yi boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari rakka ñaari rakka ya nga jàng ca premier rakka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca des itam nga jàng ca fatiha ak qul wallahu ahad ñu ne su fekkente ne nag julli gee la bu dee ne julli gee la moom itam wax ne nu ne bëgg neen nga naafila ca juróom-ñetti rakka julli gee bëgg neen nga naafila ca juróom-ñetti rakka waaw ko defee nag dangay ngay naafila ñeenti rakka lu ko jiitu naafila itam ñeenti rakka ci gannaawam ñu ne an ibnu an ibnu umar radiallahu anhuma annahu qaal qaala man salla bacda al axira arbaa rakaatin ataahu llahu taala thawaaba man axya leylat al qadr ñu ne jële leen ci abdullah ibnu amr abdullah ibnu umar radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne képp koo xamante nii ba nga jullee gee ba pare nee na naafila nga ñeenti rakka nee na ñeenti rakka yooyu boo ko naafilaa mel na ni dundal nga guddi laylatul qadr ba ñu fay la yool bu tol noonu kon mu mel ni ginnaaw julli gee tolloo yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr kon mu mel ni daal bëri pexe xam fa ngay jaar yàlla ba am ngërëmam moo ko gën waaw bëri pexe xam fa ngay jaar yàlla ba am ngërëmam moom moo ko gën ni kon naafila yi ñu fi tudd ay naafila la yoo xamante ni nit bu fekkee respecté na ko def ko nga xamante ni noonu la ko yonent bi diglee dana ca am yool yu rëy wax nañ ne itam gannaaw zawaal nit ki julli ci baax na trop ndax wax nañ gannaaw zawaal moo di balaa ñoo julli tisbaar waaw ay côté une yooyu rek nga la ci am na solo ndax wax nañ ne heure boobu lépp lu yàlla bind mu ngi sàbbaal yàlla te heure boobu ci la ñuy ubbi bunti asamaan yi yàlla xool jaam yi ak bëtu yërmandeem moo tax ñu ne digg bëccëg moo tolloog digg guddi ñu ne digg bëccëg ci la ñuy ubbi buntu asamaan yi yàlla xool jaam yi ak bëtu yërmandeem ñu ne nag diggu guddi ci la yàlla di wàcc ba ci asamaanu àdduna bi wax jaam wi ne leen ñaan leen ma ma may leen su ngeen ñaanee rek ma nangu ko kon mbokk yi mu mel ni ngëneel yu rëy ngi nii ci biir julli ñu réere ko war nañu xam ne nag julli mooy kennu diine ku ko mabal mabal nga sa diine ku ko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabaarakallaahu mbokk yi loolu moo doon waxtaan wi leen indiloon seen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndao doon leen ko defal ak seen mbokk Pape Dia ak professeur Ousseynou Cissé ñu nuyu nag